ñun moom bokkatuñu fa ñun moom 2015 ba ñu yëree yër yër xool xool xool gisuñu lu ñu xam la ñu taxaw wax liñ war a wax magum waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko ñun waxoon nañu ko taxaw ñu ne ñu ñii day waxe picc la ñuy wax ñun lañu ñu gisoon 2015 gars yi toog nañ ñeenti at soo koo gis dañ ci sant yàlla te tey jàpp naa ne ñëpp gis nañ ne ñoo nekkoon si dëgg ñaareel bi tamit booloo gi ñu booloo tey ak président Macky Sall ànd ak moom liggéey parce que président Macky Sall ñoo nekkoon ci wetu président Abdoulaye Wade xamante bu baax yi tamit bokk école bu ñu tàggatoo waa mais yéen bu ngeen bokkee nit ki école bu ngeen tàggatoo yàlla dogal ngeen dem composition mu jël premier da ko koy yéene loolu tamit mooy mooy ngor. ñu nangu ko yéene ko ko ànd ak moom juboo ak moom mel na ne juboo googu ñu defoon ak moom i tamit ah tey jii de ah mel na ne gars yi tamit bëgg nañoo juboo ak Macky kon mel na ne foofu tamit dëgg gi ñoo leen fa njëkk kon loolu mooy li nga xam ne rek bëggoon nañ ko wax ci mbirum sunu sunu mbokk yooyu di fàttali rek ne ñun président Wade moom fañ ko tegoon démb teg ko fa bërki démb foofu lañ ko tek tay te inshallah aussi fa lañ koy tek suba moy suñu papa la moy suñu source d'inspiration euh moy ki nga xamni tamit weg nañ ko ci walu ci walu ci walu ci walu politique kon suñu digënté euh nit ñi dañuy faté rek mais ma moom dajé won nañu 2015 la wax li ñuy wax def réforme yi yëf jaxaso mais par président ngeen koy 2017 ba djubo dem en 2017 pendant deux heures trois heures de temps d'horloge ñu waxtaan ci lepp lepp lepp lepp ma xamal ko ne ko yow papa nga man la kon suñu digënté mom personnellement dara nekkatu ci comme jafé wala comme comme comme problème a politique

ñu ngi ànd ak moom pour que mu am ndam ci fal gu bees gi nga xam ne Sénégal yi dañ ko koo fal